ndax ñu mën a am ngërmandik yàlla buur bi subhanahu wa taala ak yool yiw yi nga xamante ne moom la yàlla buur bi subhanahu wa taala diggee du ñu fàtte mukk ñi nga xamante ne gunge nañ ñu ci jotaay bii nga xamante ne muy jotaayu As-Salafou Mahal muy loo multimédia nekk fële ca Sandaga nga xam ne ñuy jaay lépp lu jëm ci électronique maanaam lépp lu jëm ci téléphone ordinateur lépp loo xam ne bëgg nga ci qualité mu rafet lool taaru lool xamal ne ay bagage yi alquran la neena le la alquran ni muy rafetale nit waaye nonu lay dégrale ay matériel di ko baaxal lool ñoom bàyyiwuñu mukk këru alquranul karim waaye dañ ñoo gunge waxtu nekk ci li nga xamne mom moy jotay kon numéro yi dina daw ci suuf ku ko xool rek inshallah taala so fa wote so fa deme la nga bëgg diñ ko am te mu rek lu bax te muy qualité ñu ngi leen di sant bu bax di leen gëreem kon ñi nga xamante ñom ñoy tewlu jotay bi di as-salafu mal quran ak seen mbokk Cheikh Omarul Fouti Ciss ci kër gi di la maison du Coran tey nak ñu dellu ci ci benn tomb boo xamante ne am na solo lool mufiid jiddan jiddan ci képp ko xamante ne dafay jàng alquranul karim képp kuy jàng alquran ngay qaari wala toog sa kër ubbi alquranul karim wala bépp waxtu woo xamante ne yaa ngi bëgg jàng alquran muy suba wala ngoon wala guddi wala bëccëg ak fu mënti nekk maanaam moment bi ngay ubbee alquran di jàng tomb bi tey amal na la yitte lool amal na la yitte mooy li ñu tuddee tahdid wa istihdaaru ahdaafi qiraati alquran moy lan dañ leen di waxal ki jàng alquranul karim euh liman taqra kan mo tax ngay jàng alquran taqra lillahi subhanahu wa taala da ngay jàng alquran gir yàlla ta'abbudan lillahi subhanahu wa taala da ngay jàng alquran di jaamu yàlla bur bi subhanahu wa taala waye limaada taqra lan mo tax ngay jàng alquran lan mo tax ngay jàng alquran lan mo tax ngay jàng alquran googe mom moy tomb gi nga xamantene ne bëgg nañ ci yaatal lool ci seen as-salafu ma al-qur'an tay ji way ak jotay yi nga xamantene mom moy ñëw moy len anniya moy yene anniyatu futuhat manam yene ay ubbeeku la dañoo ëppante pourcentage bi nga xamantene mom la ci nit di am masalan yow ak ben nit man ngeen def ben jëf manam nga saraxe mu saraxe yow nga am téméri tuyaaba mom mu am fukki tuyaaba nga saraxe mu saraxe ku nekk yene bokko li ngeen saraxe waaye yow nga am téeméer tuyaaba moom mu am fukk la ko waral mooy da da koo raw ci yéene yow da da ngeen rawante ci yéene bi matalan ki nga xamante ne dafay jël alalam daal di koy jox ab jegeñaaleem yaani as-sadaqatu alal qarib nga daal di jël sa jegeñaale jox ko sa alal fekk sa yéene nag dañ cee jublu ñaar benn dañ cee jublu sarax ko waaye jox ko ci mbokk kon boobaa da am ñaari tuyaaba tuyaabay lan saraxe waaye ak tuyaabay jox ko mbokk bokkul ki nga xamante ne dafa jël alalam jox ko ki nga xamante ne jegeñaaleem la te mu jublu ci saraxe kefe wala mu jublu ci jokku mbokk kese lolé nak su fekké ci benen ibad la am القران الكريم من اجل واعظم العبادات القران بيغا خامني بوكنا تي گن جاي ري جامو يالا بور بي سبحانه وتعالى موي قراءه القران موي القران الكريم كيف كوي جانغ القران léeg-léeg nga gis nit di jàng alquran nga ne ko lu tax ngay jàng fekk moom daf cee yéene shifa moom dafay jàng alquran pour faju mathalan dafa boppam mooy métti wala tànkam di métti wala biiram di métti muy jàng alquran waaye mu jublu ci ne xaaral ma jàng alquran gii pour mu mën ci faju loolu rek la ci yéen yéene wu leneen wala léeg-léeg am kuy jàng alquran mu yéene ci lan tuyaaba kese jamono ba nga ubbee alquran ngay jàng yéene ci tuyaaba kese léeg-léeg am kuy jàng alquran mathalan mu ngi ci biir classe élèves yi nga xamante ñoom ñu nekk terminal wala nekk première wala nekk feneen ñi nga xam ne ñoom dañuy def alquran muy jàng alquran mu jublu ci lan sàkku xam-xam kese dafa bëgg xam aaya gi lu muy firi wala ijaaz bi nga xam ne moo nekk ci aaya gi wala léeg-léeg nit ubbi alquran di ko jàng ngir lan daf koo bëgg a jëfe kese daf koo bëgg a jëfe wala léeg-léeg nit ubbi di ko jàng ngir lan di ci déylante ak borom bi subhanahu wa taala gis ngeen juróom yi ma leen limal kon kuy jàng alquran ci benn même jàng bi maanaam ci benn jàng bi ngay jàng aaya bu ci nekk na ci yéene juróom yi yëpp bul yéene benn kese parce que alquran dafa ëpp loolu waaw benn benn xajar la nga di ciy am ñaari picc maanaam benn benn bal nga daal di ciy jam ñaari ñaari picc waaye bii dangay jam juróomi picc kuy jàngati alquran na nga yéene juróom yii yépp maanaam nanga nga istixdaar nga daal di yéene juróom yii ma tudd athawaab mooy tuyaaba sooy jàng alquran ak loo man lu mën a tax ngay jàng yéene ci tuyaaba ñaar ashifa yéeneel alquran mën laa faj ñett al ilm yéeneel sakku xam-xam ñeent al amal yéeneel jëfe alquran gii ngay jàng juróom al munaajaat yéeneel déylante ak yàlla yaa ngi wax yàlla buur bi subhanahu wa taala ngay waxal moo tax ma waxoon leen hada alkitaabu alladi man daama yaqra'uhu qad baata yuxaatibu arrahmana bilkalimi ca sama taalif ga waxoon naa leen alquran mooy téere bi nga xam ne ku toog di ko jàng yaa ngi communiquer ak yàlla mu ngi mel ni ku jël téléphone am ne xaaral ma woo Cheikh Omar ngay wax may tontu kon soo bëggee woo yàlla rek ubbil alquranul karim kon kuy jàngate tu tuyaaba gi day bari lool nee na leen yowm alqiyam illa man ata allaha bi qalbin salim lu waay andi ci tuyaaba yowm alqiyam doyul kon tey jii ki doon jàng alquran nga xam ne xarfu bu nekk fukki tuyaaba rek la ci doon am kaay wax naa la loo xam ne xarfu bu ci nekk di nga ci am tuyaaba yu dul jeex parce que da nga cee yéene da ngaa dëxëñ lëmasaale ay yéene yu bari ci benn jàng bi kon kuy jàng alquran ci juróom yi soo ci yéenee juróom yi di nga am yeneen juróom maanaam soo ji soo yéenee juróom yi di nga am bénéfice yu yeneen juróom muy xersun maa danaa ci ñëw ci jotaay yi di ñëw juróom yi ma leen wax muy althawaab alchifa al ilmu al amal al munajat juróom yooyu laa leen tënkaloon ca baat ba pour ndong yi mën koo jàpp muy leen su shaimun thaun shinun aynun aynun mimun thaun yéene bu njëkk bi mooy nga sooy jàng alquran yéene ci tuyaaba tuyaaba gu bare bare bare maanaam nit ki ni ngay liggéey ba wér wi dee nga daal di jël lenn ci sa xaalis dem dénk ko banque maanaam dugal ko ci sa compte kon bu kenn toog benn seconde te sa compte yomal qiyam muy sa misanul hasanat duggaloo fa ay tuyaaba yu bare bare wax naa leen ne soo nekkee ci bureau bi jàngal alquran soo nekkee ci oto bi jàngal alquran wala ngay déglu alquran sooy jaay ca marché ba maire bi jaay géej sax client bi suy waxaale jàngal alquran wala ngay tari fatiha astaghfirullah subhanallah ngay tudd yàlla buur bi subhanahu wa taala waxtu wu nekk rek ngay ngay ngay ngay déposer ay tuyaaba pour yomal qiyam ndax lu fa waay yóbbu ci tuyaaba wallahi alladi la ilaha illa huwa tayul kon da ngay jàng alquran yéene bu njëkk mooy nga yéene di ci am tuyaaba yonent bi sallallahu alayhi wa sallam dafay wax ci xadisu imam at-tirmidi nga xamante ne muy xadisu abdullah ibn mas'ud radiyallahu anhu man qaraa harfan min kitabillahi falahu hasana ku jàng benn araf benn lettre ci alquran am nga tuyaaba wal hasanatu bi ashri amthaliha yonent bi nee ne waxuma la ne benn tuyaaba ngay am de araf bu ci nekk da ngay am fukki tuyaaba لا أقول ألف لام ميم حرف دوما واحد نغني ألف لام ميم نغا أم بين حرف هم نغني تويب من ولكن ألف حرف ولام حرف وميم حرف خلال نغني ألف لام ميم رك أمغا أمغا فنويري فنويري تيابا بسم الله الرحمن الرحيم نعت تيابا نغي أم تغن جاي توتي أمغا تلون أرف بنك أمغا تي نعت تيابا فك تيابا غن جاي توتي كون كي ديما ديغلو غور غاو فو نيك ديل جانغ القران الكريم لا يرد اجره ولا ثوابه جانغال يالا داف كوي نانغو غي ام تياب اي مليون تياب بار مينيت حديث عثمان بن عفان رضي الله تعالى عنه ينتبي صلى الله عليه وسلم دافو خيركم خيركم من تعلم القران وعلمه كي گنتي يين باتو خيركم نكو نيب باي خيل كي گنتي يين موي كي جانغ القران تي ديكو جانغالي مو تاخون مانيلين نيت كي اك لو مانا نيك سا ميتيه góorgóorlul ngay jàngale alquran donte soo wàccee say doom nga jàngal leen alquran say jarbaat sa soxna nga jangal ko alquran dina tax nga bokk ci ñi nga xam ne ñoom ñoo gën ci jaam yi moo tax barki démb ñu baree bari ci sëriñ daara ci réew mi jot nañ bind boobu ma leen waxoon ne leen léeg nga daje ak nit mu ne la lan mooy sa métier wala léeg-léeg ngay ñaani soxna surtout qurra'u célibataire yeeg sëriñ daara célibataire nañ ma déglu léeg-léeg nga ñaani soxna ñu ne la lan mooy sa métier lan ngay liggéey comme goro yi léegi dañoo dañu yitte lool lan ngay liggéey léeg-léeg nga nekk jàngalekatu alquran nga koy nëbb wala rus koo wax yëkkatil say mbagg nga def nii ana muallimu alquran ne ko jàngalekatu alquran laa yëkkatil say mbagg ëffal sa dënn bi nga ne ko ana muallimu alquran jàngalekatu alquran laa parce que yonent bi ne xayrukum ki gën ci yéen ak ndombal tànk bu waay mën a am yonent bi nee ne ki gënal yàlla gënal ma te gën mooy ki jàng alquran te di ko jàngale yow nga am métier boobu dem di ko rusa wax nel man jàngalekatu alquran la لا moom lay ndamoo kon nañuy jàng alquranu karim yemu ca حديث يا عائشة إمام البخاري أك مسلم داري كوينت لي ينتبه الماهر بالقرآن مع السفرة الكرام البررة والذي يقرأ القرآن ويتعتع فيه وهو عليه شاق له أجران نانا كيغا خمنا دفا من القرآن متريزي كولول ما نمنك أب مسيتي القرآن sonn ci lool xam nga jàng alquran génne maxaariju alxuruf yi bu ci nekk ak fa muy génne yombul daal di koy mën lool góorgóorlu ci lool muy jàng alquran wa yutaatiu fii mu koy jàng muy méttil parce que qiraa maanaam su su fekkee da ngay taqlid abdulbasit wala xusari mujawat wala yu mel noonu wala mustafa ismail léeg-léeg day métti ci lool maanaam da ngay gis da ngay nooyi tëj sa nooyi tëj ko mu métti lool nee na ngay jàng muy métti lool wa huwa alayhi shaq yonent bi nee ne lahu ajraani am na ñaari yool ci xarf bu nekk manam araf bu nek dang ci am fukki ba ngir araf ba nga amale ci fukki ba ngir métti bi mu métti ci yow la hawla wala quwwata illa billah kon hada li mom lii amale ci taswiq yonent bi def na lu nek pour ñun ñuy jàng alquranul karim guddi ak bëccëg suba ak ngoon so deme itam imam muslim da fay netti ci nga xamne mom moom hadith imam muslim ibnu maaja dañuy netti yonent bi sallallahu alayhi wasallam sallam iqra'ul qur'an iqra'ul qur'an jangaleen alquran jàng alquran jangaleen alquran yonent bi nañu jàng alquran limada melni dañ ne ko lutax ñuy jàng alquran yonent bi sallallahu alayhi wa sallam fa an fa innahu yati yawm alqiyamati shafian li ashabihi ndax bu yawm alqiyamee bu ñëpp jaxlé te jak dañu jàq jàkkarloog sa wara ñëpp tit neena alquran da di ñëw muy rocc ci bir sappi ay nitam na yàlla ki sama nit la ki daan na ma jàng yàlla kay ki daan ma jàng yàlla ki daan ma jàng yàlla ki daan ma jàng mu dal di rocc ci ay nitam imagine len takhayyalu ma'i ci sufufu yawm alqiyamah ah naaj bi daal di wàcc jant bi daal di wàcc ah ñëpp daal di ñàkk ba seen ñàkk di leen wan na alquran daal di ñëw di rocci ay nit ci sàppe yi ba ñu bari mu ne yàlla yóbbul ma ñuy àjjana waaye ñii moom ci samay gaay lañ bokk iqra'u alqur'ana fa innahu ya'ti yawma alqiyamati shafi'an li ashabi muy hadith abi umama umar ibn alxataab dafay nettali رضي الله عنه من أما إن نبيكم قد قال إن الله يرفع بهذا الكتاب أقواما ويضع به آخرين يلا يكتنا أي نتلي تخمو يكتلين dañoo ngoy ci alquran waaye yàlla toroxal na ay nit daal di leen suufeel la ko waral dañoo ngoyul ci alquran dañoo bàyyi alquran kon tey jii lii moo nekkoon suñu jotaay bu njëkk ci juróomi tomb yi ma leen wax ne kuy jàng alquran boole ko nga dëxëñ ko ci yéene bi ba ci jiitu mooy nga yéene tuyaaba des na yeneen ñeent ku ko bëgg xam topp ñi ci jotaayu magi alquran mag ñi ak alquran yii nga xamante ne moom mooy ñëw di nga xam juróom yi yëpp nga xam ne saa yoo jàng alquran bari lool bonus lay nekk nga xam ne rek bonus milliard pour cent nga xam ne amul benn euh, opérateur opération gi opérateur bi nga xam ne ñoom dañ koy def ci réew mi alquran rek ko mën yàlla rek moom moo koy def parce que yàlla du jeexal ñaan yàlla yàlla jox leen dara du wàññeeku ci li nga xam ne moom mooy am amu yàlla bur bi subhanahu wa taala kon yéene bu njëkk bi ci jàng alquran moom mooy nga yéenee am tuyaaba yi ci des incha allahu taala ku ji topp ci jotaay yi di ñëw muy jotaay asalaf mal qur'an ci kër gi di la maison di coran nga xam ne képp ku fonk al karim ak foo mën a bokk nekkal jullit rek nga bëgg qur'an am nga sa ci kër gi ma kaana min sawabin fa min arrahmani wa ma kaana min xatain fa min nuqsaan salla al ilahu ala nabi wa alihi ma labba mulabin aw tahallala muhrimu du ñu fàtte mukk jëmm yi nga xamante ne ñoom ñoo ànd ak ñun ci jotaay bi nga xam muy moom ñoom multimédia ñoom ñu nekk fële ca Sandaga di jaay lépp loo xam ne jëm na ci électronique lépp lu jëm ci téléphone ku bëgg téléphone bu rafet lool iPhone bu ngeen bëgg rek dem leen foofa xeetu téléphone bu nekk lu jëm ci wàllu machine ordinateur lu jëm ci bagage yépp loo xamante nit ki daf koy jëfandikoo ci wàllu électronique su ngeen demee ci ñoom insha allahu taala dem leen ngeen jàpp ci liggéey bi parce que ñoom dañuy jàpp ci liggéeyu alquranul karim kon loolu moom moo nekkoon suñu jotaayu tey As-Salafou Mahal Qur'an lu ci jub yàlla la lu ci dëng ñun la